di leen nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di leen gërëm ci seen teewaay fii li ñu fi indi tey mooy ñun ñi nga xam ne ñooy membre comité bi nga xam ne moo dajale waa ñi def cinéma di def audiovisuel maanaam cinéma ci télévision yi ak ci yeneen ci yeneen fànn ñu sasoon ñu ñu sedd leen dimbali bi nga xam ne président de la république moo ko jagle woon ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur culture naa mooy xarala ci biir secteur culture boobu 3 milliards lañ leen affecté woon 3 milliards yooyu ñu sédd ci secteur bu nekk théâtre euh, danse ñeneen ak ñeneen cinéma ñu sedd ko 500 millions cent millions yooyu ministre bi ne yéen yéen koy séddaleel seen bopp ñenn ñi ñu ko ci biir secteur boobu ñu daal ci tànn ay nit yoo xam ne ràññee nañ leen ci biir yëngu bu ñuy def ci secteur cinéma ak audiovisuel ñu leen yéen kat la ñu dénk ngeen saytu seen i naataangoo yi nekk seen biir xool nu ngeen di def ba séddale xaalis bi. ci nu mu gën a jubee ci nu mu gën a équitable ci loolu la nit ñi dajaloo comité waroon mat euh, fukki membre ak juróom wala juróom-ñaar ñu liggéey pendant fukki fan ak juróom ak lu ko pour ñenn ñi am na ñoo xam ne def nañu ay jours yoo xam ne ñeneen ñi liggéeyuñu woon am na ñu liggéey plus de vingt jours bi ñuy liggéey dañu ne ñun daal li ñuy jiital mooy dañuy fexe ñu ñu bañ a mën a mënuñu matale mais ñu ñu dajale le plus largement possible ñi ñu mën a jot yëpp ñu jot leen ci biir loolu ñu fexe ba euh, ñi ñu xamoon ci secteur bi wala seen tour nekkoon ci biir DCI ñu amoon ay cadre professionnel wala ñu defoon ay enquête wala mu amoon ay association professionnelle yoo xam ne seen i mbootaay listé nañu ay nit ñu jël loolu comme première base bi ci topp ñu lancé un appel ne ah ku nekk ci secteur du cinéma te yaakaar ne yow mën nga bokk ci mbir bi na bindu critère nag lii la foog nga wane ne yow ci kër gi nga bokk bu dee da ngay nekk acteur nga wane ne joué nga ci benn film au moins wala ñaar suivant catégorie nga def bu dee distributeur nga nga wane ne mu am nga am nga statut bu dee entreprise nga wane say statut bu dee euh, je sais pas technicien nga nga wane contrat travail yi nga mën a am ci film mu sa am ci film yi defoon ak nangam nangam ku nekk déposé ñu satisfaire si condition yooyu ñu dajale leen bi ñu leen dajalee aussi comme dañu ne xëy na tolluwaay yemul ci ci entreprise yeeg benn nit ak entreprise yemul kii liggéey liggéey yàgg ci métier bi ak ki ci soog a door yemuñu ñu fexe ni ñu koy catégoriser mais ci biir catégorisation bi ñu jàpp ne daal bu mu ëpp ëppalante ba ëpp dayoo ñu fexe ba écart ba bañ a yaatu mais c'est une question lañ ko defee bi ñuy liggéey tam suñu biir li ñu doon liggéeyee mooy dañuy waxtaan bu juboo amul xëccoo amul xiiroo amul ngaayam ku am si idée lañ koy wax soo convaincre nit ñi li ñëpp jàpp ñu appliqué loolu loolu la ñuy liggéeyee bi ñu commencé ba yàlla ngi suturaal ba mu jeexee nga ñaan yàlla mu suturaal ñu tamit ñu terminer ko ak jàmm ñëpp jot seen xaalis ñu dem donc 500 millions yooyu ministre bi remettre nañ ci benn chèque bu 250 millions jóge ci Covid bi beneen deuxième chèque bi koy complété mi ngi ci yoon bi je crois que dina yegg si ba taxoon ñu ne comme xaar bi yàgg na te nit ñi ñu ngi wax naan nu mu demee ñu war dajalee nit ñi fii pour wax leen fi ñu tollu ci liggéey maintenant deuxième phase bi ci topp moo di euh, procéder au paiement donc nit ñi il ñu indi këyit yooyu ñuy wone woon li ñu waxoon ne moom la ñu def ñu mun ko firndeel parce que lépp li ñuy def tam dañ ci rendre compte ministère des finances ak commune bi ci mag bi bi ci kaw ak euh, daal ministère la culture ne ko ñii kat lañ jox xaalis bi seen chèque gi nii signé nañu fii këyit yi wone ne am nañ ci wàll boobu ñu nii firndeel nañ ko ñu déposé leen ko parce que dina am audit donc loolu dañuy fexe ba loolu mu jaar yoon ku nekk tamit këyit diñ la laaj indi ko boo indee li nga ñu jox la yi bi nga xam ne nit ñi la ñu retenir dinañ ko publier euh, ci euh, site ministère euh, direction de la cinématographie nit ñi tam dinañ ko partager ci seen réseaux réseaux sociaux ñi nga xam ne aussi bénéficiaire nañ dinañ leen woow ci nekk wax leen ne yow kat ñëwal xam nga li indil say kayit soo ko indee ñu jox la ñu la war a jox donc loolu mooy li ñu ko tënk bon xëy na maas yi xam ndax jar naa wax. Euh, à peu près deux cent et quelques millions moom la ñu jox euh, ñi nga xam ne travailleurs indépendants la ñu mooy techniciens yeeg réalisateurs yeeg yooyu entreprises yi ñu séddale leen cent deux millions yi sax nga pour entreprise yi def distribution yi festival yeeg manifestation yeeg ñi nga xam ne ñu def formation ñi nga xam ne ñoo def production maanaam ñoo defal film yi ñu séddale leen cent quatre-vingt-dix millions deux cent mille waaw donc foofu lañ toll léegi nag ñu ngi ñun tam ñu xam ne lii tam ndimbal na boo xam ne mu doon naa ñàkk su ñàkkoon tamit dañuy xam ne ñëpp sonn rek mais président def na ko pour dimbali nit ñi pour dàmp leen comme ni mu daan ko yeneen secteur yi nit di ko ci gërëm di ko ci sant xam ne lii ma leen jox euh, euh, baax na si ñoom dina am njariñ si ñoom te xeebuñu ko loolu tam baax na ñu ñi waxaale ko nit ñi xam ko xam nañu daal li mu leen di jariñ te ñu ko ci gërëm di ko ci sant ñu ngi gërëm tamit ministre de la culture bi nga xam ne moom tamit taxawaayam gis nañ ko moom moo doon avocat wu secteur de la culture auprès du président de la république taxawaayam nit ñi gis nañ ko ràññee nañ ko ñu ngi ko ciy gërëm directeur de la cinématographie bi nga xam ne liggéey bi ñu doon def ci ay bureau lañ ko doon defee ci ay employé am dañu si jàppale moom tamit ñëpp a koy gërëm di ko sant ñi doon def liggéey bi aussi te kenn fayu leen nga xam ne ñoom seen ñoo ci yem képp mun na sax si ñoom ñoo xam ne duñ ci bokk ñu xam ne ñëw tamit ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bi ñu defoon te kenn fay leen te ñu def ko rek pour la bonne cause donc loolu mooy am en fait ci ci tënk euh, li nga xam ne moom la ñu waxoon fii dama si doolewoon rek ñaan di ñaanal ñëpp di ñaanal Sénégal di ñaanal ñëpp ñu am jàmm am wér am dal ba nga xam ne ku nekk si liggéey bi ngay def li ñu passé yëpp dañ koy daal di fàtte.